d'accord dëkk boobu dinañ ci dinañ ci ñëw léegi. Ah. Euh, parce que su ma juumul heure bii daaw. de àndoon nañ jàng foofu. Mm. def nañ fa ay ay ay ay ay fan. Ah, euh, man am na lu ma fi jot a loo lool soo ko waxul man dinaa ko wax téléspectateurs yi mu leer. Ah, euh, muy dëkk bu yéeme. dëkk bu mm. dëkk bu doy waar li ma xaw a jaaxal tuuti rek mooy damaa xamul turu dëkk bi nu mu tudd deuxièmement mënuma fa yóbbuwaat sama bopp. waaye nag moom dina ko wax tey jii nii <laughs> El Hadj Seyba Keita nga yëngu ci wàllum seet. Mm-hmm. Euh, benn pronostic boo fi mësoon a def ba euh, ba Yankuba Badji dañuy may benn élément bu njëkk ñu xool euh, El Hadj Seye mu waxoon ci diggante combat Modou ak Lac de àdduna sax wax ñu nekk ci benn événement bu mag muy événement boo xam ne suba lay am muy diggante Modou ak Lac de mu nekk événement boo xam ne kenn tëddatul géejawaay tëddatuñu parcelle tëddatuñu yow looy wax ci combat boobu wax ñu tuuti rek kam mooy jël ndam. waaw man xam naa ne man duma tudd tudd nit quoi mais am na koo xam ne yoroon naa leen fii ñoom xam nañ bu baax a baax a baax ñoom xam nañ ma peut-être sax ñoom bi ñu gisee dinañ xam ne am naa jàmm am yoo xam ne yoroon naa leen fii bu ñu dem bu retraité xam nañ ma bu baax man daaw moom comme ni ma la expliqué sànq rek daf ma ko pour pour affaire liggéey nii quoi. parce que man ñaari doomu réew mi yëpp man ku nekk kii daan rek ma kii daan rek ma ma man damay supporter ko parce que mënuma far kii bàyyi kii loolu moo tax mais li nga xam ne daal moom xam naa ne moom combat bi ki nga xam ne mooy daan moom Modou Lo moom mooy daan moom. loolu daat ak foo ko ñëwul si man pour pour ma ma ma xamal ko de yow yaa ma laaj yaa tax ma wax ma wax la ko dama la koy wax nii rek pour war na tuuti preuve loolu kese la mais sunna moom ñëwul pour man xaw ko sax kër moom soo ko gisee bu ëllëgee bi liy passé soo ko soo ko tegaat ndax da mos na maa gis dina wax déedéet man dama laa bëgg woon preuve rek pour wan la ne moom mooy daal bu neexee yàlla. daan dañuy xeex wala dañuy léwtoo wala ah daan boom moom moom daan moom daan moom mun nañu à tout moment parce que anniversaire am toogul. parce que man euh, lu ma feeñ daal moom mooy daal waaw moom mooy jël ndam bi bokk waaw parce que même arbitre même bu fekkee arbitre jox na ko ndam sax mais ndam daal moom moom moom moo féete ndam bi jërëjëf Yankhoba Badji Abdourahmane Fall ak Souleymane nekk si bi ñoo jox élément boobu El Hadj Babacar yaa ngi fàttaliku suma juumul waaw <coughs> Babacar waaw nga parce que bii mooy sama sama buy moom sama première vidéo hmm. parce que man euh, bu jëkkoon man avant télé am fi Sénégal hmm. boobu RTS moom fi amone hmm. euh, jamono boobu bëgguma wax tur quoi mais mosu nañ ma fekkee mosu nañ ma bëgg depuis caméra wan ki nga xamante moo nekkoon directeur RTS mais jamono boobu man damaa bañ boobu inter internet yi sax amul woon parce que bi RTS di nekk télé Sénégal boobu

mu xamaloon ñu ne euh, Modou Lo mooy am victoire ci kaw Lac de Guiers ñu ne ko boo ñemee li ngay wax nga wax ko bi mu dikkee ñu interviewé ko mu xam le ne Modou Lo mooy am victoire ci kaw sa ci kaw euh, ki nga xamante ni moo di Lac de Guiers 2 effectivement noonu la mu mujjee demee par décision arbitrale tey euh, wàllum seet yow naka nga xamee woon ne Modou Lo mooy am mooy am victoire ci combat boo xamante ni ay heure ñoo ci lesoon xam nga xam-xam dañ koy jànge mm-hmm.

Mhm. boobu laa wax ne def naa ko métier. su ko bu ko tegaatee fenn bi sax def naa ko man ko mu ne ko léegi def nga ko si métier na ko def naa ko si métier. d'accord waaw parce que boobu dafa am fu fu ma ko tegoon. d'accord waaw d'accord léegi wàllum seet donc yow nekkul loo jàng waaye loo doon la bu bu ñu déggee bu baax li nga wax. waaw doon la suñu famille. sama yaay sama maam sama paapa ñoom dan daan eh, masala amna na ku nekk liñ la liñ la lu la yàlla dénke woon d'accord kon kañ ku si am nga si côté boo xam ne xëy na ci côté boo xam ne waaw mm-hmm. ci ngay ci ngay ci ngay seet waaw depuis loolu nag nangootul nangul nanguloo wax ci wàllum eh, forcé nañ la jour eh, mm-hmm. pour que pour nga pour nga wax ci ngay ragal di di di di di seet publiquement parce que pourtant seetkat yu bari dañ koy def parce que nit du du bàkku boppam mm-hmm. du la Euh, seet yi publiquement loolu bàkku la mais ku ñëw di nga xam ni parce que li tax ma waxoon ni fesal ko nii. Hmm. parce que dafa am pour preuve laa doon wane. d'accord su ne musuma nangu wax sax ay affaire làmb. Hmm. toujours dem may ñëw di ma wax affaire làmb nangu maa wax. lu tax dangaa ragal bëri boo xoolee lan moo tax nanguwoo wax ci ci euh, euh, parce que xam nga man ku ñëw. Hmm. fay ma. ne seetal ma dinaa ko def. mais ku ñew lu seet ma pour ma wax wax jambour nii comme ça lolu lolu mom du ma def. pourtant gaay dañ ko xewal ah Serigne si. wa mais ñom ñom ñom ñom la ñom la concerner mais man. Hmm. sa mbop duma ma wax wax jambour te sant ñu ma hmm. si ma fay nak su boba ma dina wax li nga xam mom mom la gis. te bu nexe yàlla kep ko xam ne na ñu ñëw man ah, na man mom duma ma duma yonenti ma serif duma ma sérif du ma waliyu mais yaakaar ni ñu fi ñëw yéen ci man tey ji ah, ñu ba tey ji sax félicité nañ ma. d'accord voilà El Hadj Seyba Keita est-ce que tey ci wàllum seet gi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee mës nga ci euh, rencontrer benn benn problème c'est-à-dire que nit koo xam ne ñëw na ci yow ne la damaa nga seetal ma nga seetal ko. mu jógee fa parce que des fois seetkat yi la ñuy tiital nit des fois dañuy tiital nit ba finalement yow la ngay seetlu sax da nga koy mujjee faate da ngay ñëw ñee la bon sama tànk day metti ñu la dañ laa liggéey sama bopp day metti ñu dañ laa sëf sama nangam day metti ñu la léegi dee des fois seetkat yi dañoo dañoo doy waar est-ce que mës nga si am benn cas boo xam ne seet nga nit ba noppi mu mu jógee fa da ngay bëgg nangam loolu këcc client la. loolu ay dóor la loolu ay dóor la rek. parce que xam borom xam-xam médecin sax léeg-léeg da ngay gis mu seet ne kii dafay fëkk day wóor ne wóor yàlla dem bii du fi jóg. Mhm. mais du ko wax. Mhm. day wax rek mu ne fii amul place mu bind ko ordonnance dama la kër gi nga jël mu jox ko rendez-vous balaa rendez-vous boobu mu mu génn àdduna boroom xam-xam tam boo amee xam-xam da ngay xam nooy waxee ak noo gisee soo gisee misa ba sax waroo ko wax pour mu pousse dugg si. voilà parfois man nu ma koy gisee su ma defee loo xamante ne su ma koy seetee dafay mën a waa yow ni nga may seetal ëpp na yow ni may gis dafa ëpp day day fekk tellement que dañ may gëm moo tax may gëm si seet bi mhm. mu ne ma yow li may gis dafa man mhm. mais parfois su la buggee gàntu dinaa la wax loo xam mënoo koo fay nga bàyyi d' accord mais tey euh, bu fekkante yàlla dafa dogal nga nit gis gis gis gis gis bi nga am ci moom mu doon lu rëy loolu ay rab la ay rab nga amee wala ay jinne wala ay lan la non man yoruma rab yoruma jinne te loolu dañuy wax rek ay képp kuy xam ne am na rab moom man gëmuma ko man gars yi naan ay non non non ay jinne moom man gëmuma ko parce que euh, am nga ñaan mhm. nit mun naa daan feebar nga def ñaan mu jug mhm. si wàllu ñaan mën na nekkee eh, eh, feebar seetaane mën na nekkee par exemple eh, jinne mais jinne mbindeef mënu koo gis. ku ko mënu gis man wax la rek wax la rek. d'accord kon daal seet gi yow ajoo ko ci ay. waaw waaw xam-xam la daal waaw xam-xam man ngay am nga ñaanal nit mu jóg xam-xam ngi am nga wax nit ki loo xamante ne moom moom mënu nekk mais loo xam ne mënu nekk man am naa jinne am naa nii am naa naa man gëm ma ko. tey tey ndax man mii nga xam ne sama bopp bi xëy na lu bari nekku ci mën naa ne dara nekku ci sax ndax tey mën nga maa jàngal seet ba ma mën ko comme yow ni nga ko mënee. waaw nit mo loo jàng amu ko ko loo jàng rek moo mënu ko noonu noonu lay demee mais am na yoo xam ne sax parfois nañ ne nit da koy jàng mais du benn at ñaar at yonent sallallahu alayhi wasallam sax balaa ñu balaa yàlla suñu borom jox ko xam-xam. Mhm. dem na ba 40 ans su ma ñu soo ko solo xam-xam moo tax mun nga xam à bas ba à bas âge ba pare ko wane d'accord waaw mbokk yi euh, Yankoba dañuy am suñu deuxième élément émission bi càngat càngat nekk na émission boo xamante ni lu waaye waxoon ci internet bi boo ñëwee toog fii ci plateau bi di ko waxaat boo ñëwul toog ci plateau bi dinañ dinañ teg élément bi nga nga ñu ñu ñu waxal lañ nga ca waxoon ndax am na fii sëriñ bu fi ne woon kat moo jëloon yaay jaame def ko ñaari yaay jaame Euh, alors que dëggat yoo ay nar yi kese la te publiquement la ko wax lu grave ngi noonu El Hadj Seyba Keita léegi da ngay gis nit koo xam ne day toog ci internet bi wala ci télévision bi di wax publiquement loo xam ne ay nar la euh, te tuddee boppam ay sëriñ xam naa loolu dañ si ñëwaat lu gën a yaatu incha allahu rabi euh, yaa ngi foog ba dañuy ñëw suñu deuxième suñu deuxième suñu deuxième ñu ñu déglu ko te ñëwaat. mosu naa wax fii benn yoo làmb yaakaar naa su ma jumul benn yoo làmb su wax wax làmb. làmb diggante Sathiès ak eh, eh, Sa Thiès ak Boy Niang ma wax ko résultat ma non ne Sa Thiès kii de ma ne ko du wax naa la fii yaa ma fay su suuf maa yow rek la yow xam nga man xam na kon jeex na moom xam na man xam na moom ku ma seet xam na benn kii la eh, benn kii la ni ñu koy waxee supporter la rek supporter la daf ma fay su suuf ma wax la li nga xam ne nee naa ko carrément Sa Thiès eh, kii eh, Boy Niang dina daan Sa Thiès mu ne ah man moom ragal na kii ponkal ma ne ko nga yàlla ku muy ndam moom rek moo xam mais mais na ñun doomu aadama aussi ñi sabablu pour xam kan ma féetale ma ne waa kon baax na kooku moom sama diggante moom la moom xam na dèjà mi muy Ben sino ben ñëw la man duma top di wax ay lamb yo xamne parce que vie privée jambour la ku ñoo yëkëti xaaliss nak di woné wone di fay ne ko ah man dama bëgg xam li su bobam ma wax mais wax wax noonu wax ci ngalaw noonu ko wax moo tax nanguma chaque fois di wax si télé ci affaire ki affaire affaire lamb parce que ben yoo la am su wax lamb Modou Lo je crois bi su ma jumlee mooy Modou bi même cas bi la quoi même Modou bi ak kii woon Lac de Guiers. voilà boobu laa mosu wax ba nee naa ko dama leen wax rek pour wol leen preuve bii nag yaa ma posé waat même question bi. ah. boobu gisoon naa ne Modou Lo bi waroon daan boobu. Mhm. te boobu xamoon naa ne sax même albitrage yëpp mhm. noonu la waroon demee mais. dama dem bañ wax ñu ne man ma soufflé arbitre bi loolu dem bañ bon mata tax wax moo tax ma li ma dem wax eh, benen bi ci dess mais bi man duma koy defati di yon tol parce que bëgguma diko def yon tol ndax vie privée jambour la eh, Balla gay su béré ak modlo ci bi dinañ dan. Balla Gaye dinañ ko daan Balla Gaye eh, wax ji. bii nga ne Modou su bëree ak Balla Gaye dina daan Balla Gaye yàlla dogal Modou Lo daan Balla Gaye dafa mel ni seet gi moom bu dee tànn tamit jàpp na de xanaa. waaw comme lépp rek si xam-xam lañ ko teg rek. d'accord mais nit mun nit nu bari bari bari xam-xam. Mhm. Eh, lépp doo ko fësal. Mhm. am yoo xam ne danga koy denc. Eto munali munali munala lolo lii yo naa laa loolu man yooyu façon façon la rek man façon yooyu <laughs> ki la rek mm-hmm. man ni parfois sax nit suy wax man damay yem sama si sama bop quoi mm-hmm. parce que man mënumaa comprendre nga gis mu amna maa def mun naa lii am naa nangam am nombre jàmm jinni nangam da ngay wane rek ku di la gis nga wan sa bopp mm-hmm. nga wan ko bu boobaa bu neexee suñu borom si yow di nga xam moom dina xam. d' accord d' accord El Hadj Seyba Keita kon gars yi ñu ngi ànd ba tey seen émission bii di càngat ñuy gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy suivre euh, depuis bi ñu ak léegi ñuy gis message yi macha allah bëri na gars yi ma leen di wax ne sama téléphone bii du ma leen mën a wuyu ci téléphone bi xam naa dañuy bàyyi message wala ñu woote directement numéro boobu nga xam ne mi ngi affiché euh, El Hadj Seyba Keita euh, c'est que seet moom ñëpp bàkkee nañ ne mën nga ko. mais seet gi c'est vrai import am na c'est c'est c'est important am na am na njariñ bu baax a baax a baax nit ki am soxla nga ne ko jaaral fii ak fii mais est-ce que traitement bi yaa ngi koy def ni mu waree c'est-à-dire que nit ki am problème ñëw nga seetal ko ba pare jox ko ay tegtal ba ba mu am saafara ndax loolu nag dëgg-dëgg mooy njariñ li waaw soo ko seetalee hmm. lépp lu lu war si moom hmm. danga ko koy wax lii moo si nekk si yow su la toppee rek bu nekkee yàlla dina ko saafara. ndax mën nga ma si jox benn exemple boo xam ne xew na ci semaine bi bi bii wala ci weer bii. si biir semaine bii ku loolu du jeex de. Ah. du jeex daa bëgg man dama bari appel de Babacar loolu du ba tey wala yàlla xam ne maa ngi jublu penku. Hmm. wallaahi lazim ba tey jii gis nañ ko gis kañ um, damay bañ teg bu baax jàmbur fii rek. Ah. mais vocal yàlla xam ne mu ne maa ngi gis sam bopp bu baax. Hmm. bu baax. te am na si yoo xam ne kenn du ko wax télé. Hmm. mu ne euh, bon luy xam nga rek am na yoo xam ne kenn du ko wax daal. comme yàlla waxal mais mais maanaam comme luy yàlla kii comme euh, lu yoon tere. d'accord am lu yoon tere ne loolu yëngatu Europe. Hmm. léegi moom lu ma ko wax ne mu jaar si loolu mu ngi gis bopp nee na mu ngi gis tey la ma vocal mu ne ma ngi gis sama bopp bu baax loolu du jeex. am na si koo xam ne aussi jëkkëram. jëkkëram wàcc na ko muy jooy téléphone lépp vocal maa ko yore mm-hmm. muy jooy téléphone mu ne ma jëkkër mi jëli na bagage dem mm-hmm. ma ne ko toogal rek déglu ma mm-hmm. bu ko woo bu ko vocal tey dem ba xaw ma tey la ma woowaatee ne ma ne eh, tonton eh, Seyba Keita li nga ma wax yëpp am na sama jëkkër ñëwaat na nee na dafa dafa damaa génnoon rek eh, damaa génnoon rek pour nga pour nga soulager man ma soulager ndax dama bu ñu rek dañuy xeex waaw d'accord ma ne ko nag lii nga yor ba mu ne ko yow kay wax nga ma ko. du jeex wala bu ma ko bëggee lim kay. émission bi du àgg mais mais Keita est-ce que yow par exemple boo dee boo dee boole ay nit. Euh, yaa ngi ciy xool sa diggante ak yàlla muy benn ndax deuxièmement tamit ndax yaa ngi ciy xool sa diggante ak nit ki ndax bari na ay nit ñooy boolee damaa bëgg takk diw rek nga ne ko ay wa amul problème. daal di fexe fexe fexe fexe bu takk ko wala maa bëgg a sëy ak nga fexe fexe fexe fexe bu sëyal ko est ce que yaa ngi xool ba xam ñoom ñaañu war nañoo ànd ba ñu topp xaalis bi rek fay naa la xaalis rek nga boole leen. si si yoon. Hmm. man nag eh, ni muy gis lii moo tax yor kii yor ma ay milliards. Hmm. chaque jour ñe nit teg ma man lépp lu may liggéey. Hmm. lépp lu yoon eh, lu yoon eh, nangu. comme maanaam lu yoon lislaam bëgg daal. maɗum mbafiyette kono mbamno gandam maɗum ok lakkal rek boo lakkee man su ma comprendre gars yi dañ comprendre léegi maintenant lépp loo xam ne ni yàlla bugg na ko yonent bugg na ko man loolaa ñaane ñoon loolaa ñaane quoi mais lépp li jëm ci aram o këlem o netto fe o mën nañu quoi maanaam lépp luy aram rek bëgguma ko. doo ko def mm. ne tuufee mooy lan. mooy ah. bëgguma ko. mooy lépp loo xam ne voilà. Ah. léegi nag wolof moom day ko débrouiller bala nga fiy làkk loo xam ne man dama ko xam. waaw te mën naa wàcc ci réew mi. cest <laughs> à <laughs> ci génnee ni di nga mën a laajee sa sa morom xëy na. si d'accord euh, El Hadj Seyba Keita wàllum football. Euh, ba soon nañ la jël benn émission boo xam ne dama wër élément ba sonn aw ma ko ku ma ko am rek na ma dibbali mu envoyé ma ko lien bi. Euh, nga ne woon Sénégal dafay gañe équipe bi ñu football dool xaw naa ko fàtte li nga njëkkoon wax mooy numéro 10 bi dina dugal numéro 10 bi dugal na waaye Sénégal gagné pour pourquoi échec boobu am xaw ma ndax yaa ngi fàttaliku émission boobu. mais émission Sénégal euh, kii. waaw. waaw mais Sénégal xam nga émission kii euh, nu ma tuddee affaire dafa am koo xam ne sax daf ma ne woon dafa ma jël charge. Hmm. pour loolu mais ñi jiitu ma ne ko ñi jiitu ñoo war a jiitu. mooy sëriñ si quoi maraay non même ki jo ki encadré euh, équipe nationale. ah d'accord fédération bi voilà fédération si boppam. man ñoom bu ñu fi jiitoo man mun naa jël responsabilité ginnaaw yàlla yonent bi. d'accord voilà d'accord kon <coughs> mbooloo dafa am ñoo xam ne bu ñu jiitoo li ñuy jiite du dem. am na yoo xam ne dañu ñëw di la c'est-à-dire bon foofu loolu milieu boobu dafa xaw yaatu. parce que dafa am euh, yoo xam ne ni ñu koy jiitale ak ni ñu ngi gëm. xam nga fi ñu gem ko xam fo nga bari ay ñu ma ay wanewu dal legi ñu yëkëti ben responsabilité jox la. Babacar man gis nga yëre bi émission bi moo tax solo ko soo gisé sama kër dooma xamé da nga né dof la. Serigne dëgg du set. lu tax parce que da ngay dem ci alam mi melni baykat baykat bo ñëw si tolom, mu naat rek xamal ni naaj bi rey sonn na ba bëgg a moom a sëriñ ñoo yem sëriñ mënu set loolu c'est incroyable ku koy wax moom day wax lu ko neex rek mais sëriñ normalement yaa ngi si àll bi di gas yaa ngi si àll bi di suul yaa ngi gas àll bi yaa ngi si àll bi di wutu ay ren ay mhm. façon bu nekk ay ren nu ñu koy wutee mhm. parfois boo fi nekkul da ngay dem des fois da ngay gisee territoire fi Sénégal mhm. Dakar fii doo am fii territoire déjà amul kii dara kese moo si bari Mm-hmm. ay yeneen garab yu ndaw. mais boo bëggee garab dëgg-dëgg foog nga dem àll Casamance ou bien nga dem àll Kédougou. d'accord voilà yooyu foog ngi am garab léegi yow nag mun def loolu ak garab bu toog climatisé bi kii la nekk si loolu. d'accord loolu nga wax moom dëggu wér a wér la Serigne si dañ leen koy ñaa ngir yàlla euh, bàyyi leen xeesal bi bàyyi leen macc tuñ bàyyi leen lanti am na fi Serigne boo xamante ni. foo ko fekk day lanti bët ji ba doo ko xàmmee mu mel ni di jinne jinne lu dañ bàyyi yooyu noonu nañu nañu jox un peu benn cër ci suñu bopp ñun Sénégalais ndax loolu kat vraiment xëy na ñun Sénégalais mën nañ mën nañ la gis ne rek jàppale benn comédien xëy na buy buy def affaire comédie mais nag ci biti bu ñu ne kii sëriñu Sénégal la ba pare ñu gis ko vraiment mu mu yor yenn melokaan yi dafay xew a doy waar nañ bàyyi xeesal bi sëriñ du xeesal gars yi nañ bàyyi nar yi sëriñ du nar gars yi nañu bàyyi macc yi tuñ nañ bàyyi yooyu noonu yooyu dafa am ñu ko moom yooyu affaire jigéen la nañ ko bàyyi vraiment soxna yeeg euh, yaay faal yi ay El Hadj